gëm dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisu toon bi yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la nii naataange ñu nii ak góor gi njëriñu neen la boo xamoon Sénégal ci mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne góor gi dañuy ji ngoy sa wax ju dëppoon ak say jëf lay dolli ñoo la wax ji dëppoon nag fi jëf guddi wàccoon nga ñun guddi yéex nañu ca jot gi dolli ñu naan la manul wax ju yàqu la mu ngi dem lu manul mag ay mata bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu ca gi yéex nañu góor gi dolli ñëw dañ ko daan di ngët naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak la njëggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay ku di jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix Houphouët Boigny bi firndeel ko góor gi yéex nañu cee góor gi yéex nañu ca jàpp góor gi dalli ñu yite dafa métti te nitu tey yàkkamti leen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko choc ca nii boo jaar ci réew mi teg ci sa bët weer bokku ca góor gi yéex nañu ca góor gi yéex ñu yar ca ba ngay daw asalaamaaleykum mbokk Daaru Marnaan maa ngi leen di nuyu kenn bu nekk ci turam ak santam tey am nañu mbégte mu rëy ci dikk bi nga xam ne dikk nañu ko fii nun nag ñooy candidat bi nga xam ne nun ñooy candidat bi ànd ak taalibe Serigne Touba muy président Abdoulaye Wade nun la président Abdoulaye Wade tànn doyloo ñu pour que departement bi mën a dellu ci loxo yi président Ablaye Wade dellu ci samay loxo pour que ñu mën a defar département bi ndax xam ngeen ne président Ablaye Wade bi mu fi jógee ba léegi lan ngeen di dund ay jafe-jafe rek jafe-jafe yooyu ngeen di dund nag su ngeen bëggee mu tegeeku bu ñu àggee la 23 na ngeen vote voté bulletin Abdoulaye Wade bi mooy bulletin bu son bi ci gub bi bu ngeen ko defee bu boobaa ma mën a jël département bi mun leen a jàppale mun leen a taxaw ndax dama jàpp ne nun taxawu leen mooy li nu war taxawu diine ji mooy la ñu war ndax bërki démb bërki démb assemblée nationale bi ñu indee loi bi nga xam ne moo war moo war a xeex góor jigéen mu bañ a am ci Sénégal menn man député Abdoulaye Wade bi rek man maa taxaw bañ bañal Serigne Touba bañal yoon bañal diine kon loolu rek war naa tax waa Touba delloo ma njukkal votel ma ndax dama jàpp ne bureau ba day metti woon na lool menn man maa fa teew taxaw bañal leen taxaw ne lii nga xam mooy góor jigéen dañ ko war a xeex ci Sénégal député yi Macky Sall yi taxaw ne góor jigéen kenn du ko xeex kon dama jàpp ne loolu war na tax bu ñu àggee ci élection yi bulletin bii nga xamante ne mooy marron bees bi bu ngeen àggee ci deuxième vote bi bu ko nit laal na ngeen jël bulletin Abdoulaye Wade bi defar ko ba mu baax votel ma ma falu Abdoulaye Wade falu PDS falu bu boobaa li ngeen bëgg ngeen man ko am ndax ñii sonal lañ leen kon dama ne la 23 na ngeen teel a jóg bu kenn tayel fu bureau de vote am nekk ak lu mu sori sori na dem vote ji su fekkee bëgg ngeen a tàqali ko ak jafe-jafe yi ngeen di dund ndax jafe-jafe yi kenn leen ko teg de Macky Sall leen ko teg Macky Sall mi ko teg nag waaw waaw Macky Sall ko teg waaw Macky Macky waaw leen ko teg nag ngir men ngeen ngeen ngir ngeen mën koo teggi lenn rek ko mën a teggi mooy carte bi carte bi mooy li ko mën a teggi bu ko kenn xeeb bu bis baa lu mu jàppoon na ko bàyyi dem vote ji vote liste bu mboq bii benn liste bu mboq fa ne am gubu dugub bu ngeen demee voté leen ko su ngeen ko voté voté ngeen ma voté Abdoulaye Wade bu boobaa ñu mën a taxaw voté Karim Wade bu boobaa ñu mën a taxaw pour que ëllëg ñu mën a faj seen i jafe-jafe ñoo ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh njëriñ a ngi nii te lépp si day fexe la màggee ëllëg raw seen maas képp xam nañ ne fii ci Touba la bokk waaye yàlla dogal na def nañ fi liggéey bu mucc ayib boo xamante ne nii tey ñu ci bëree bëree bëree bëree bëri mën nañ ne plus de 500 wala 600 cartes électeurs yoo xamante ne nii dinañ mën a voter kon tey bu ngeen ñëwee fii fekk ci bërëb bii nii sëñ bi ñu ngi lay dalal jàmm di la ñaanal jàmm di la ñaanal aussi li ngay xëccu. ci conseil départemental bi nga jot ci ndaw ndam lu sedd ba le 23 janvier incha allah au soir du 23 janvier yàlla defal la ndam ñun ñëpp ñu ànd bokk ko mu nekk ndam lu sedd. pour voter ñu nag yomb na ndax la 23 soo accès kenn ku ne na jël bulletin bu son bi nga xamante ne moo am gubu mboq bi muy bulletin bu Abdoulaye Wade bi. bulletin ab Abdoulaye Wade bi ku ko voté man nga votel votel président Abdoulaye Wade votel Karim Wade jàpp naa nun suñu yore mbir mi bu boobaa li ngeen bëgg da ngeen ko am fexe leen ba bu bis baa ngeen votel ñi ñu gañe ngeen moytu li nga xamante ne mooy bopp fas wi ndax jafe-jafe yi ngeen dund tey bopp fas wi moo leen ko teg kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah góor gi yéex na jéggi dolli ñi def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béy ko tur. sëñ Cheikh Bara ñu ngi ci gën am tey ñu ngi ci gën a ëllëg. lépp te sëñ Cheikh sëñ Modou Diagne nee na ak waa ASLM de ñëpp nee na ñu ngi sa ginnaaw lépp loo soxla daal tey ba suba ñu ngi ci loolu ñu ngi lay tàllal loxo di fas yéene nag ànd ak yow lépp noo ko bëggee rek ñu ngi ciy déglu say kàddu ngir ànd ceeg yow. mboolem waa Sëriñ Lo nañ ko jàppale ngir yàlla ak jëm si Touba ak maamam Sëriñ Touba bu ko defee daal lu ñu ko ñu doon kam bàyyiwut kenn du tàngam lu kenn waaw man na xam naa ko baax a baax kon nag xaw faa ngi nii waaw barki démb rek surtout ñu koy wax bu demee ensemble di bëgg a góor jigéen moom rek moo taxaw bañ moom donc moo taxaw ne fii loolu dafay am kon kooku waran ko jàppale ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ tuuwaan mi tax mu ne assemblée din fa xeexal mbokku asalem mbokku asalem maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam tey nag am nañu mbégte mu rëy ñëw fekkiti fekk si fi suñu jarbaat baaraloo ak Moudou Moussa mii nga xamante ne ñoom lañu fi fekk si tey ñu am mbégte mu rëy ngeen xam ne ñoom ñaar ñëpp list bi ñu leen di won ñoom ñaar ñi ngi ci biir list bi su ngeen votelee Abdoulaye Wade votel ngeen ma waaye votel ngeen Baara votel ngeen Moudou Moussa war ba bu ngeen jóg teel a jóg jël bulletin bi dem woote ji leneen li ci topp nag mooy du ma faral di wax léeg-léeg ci loo xam ne def nañu ko waaye nag comme baara day sama jarbaat ah demandé ma ma wax ko ne bu dul woon looloo du ko wax ndax man amuma habitude di jëf di ko wax comme ni ko ñeneen ñi defee fii amoon nañ jafe-jafe éclairage muy seen ñaari trente yi bi ma ko yëgee bi mu ñëwee wax ma ko dama ko daal di wax ne ko demal lijjanti ko ci lu mu gën a gaawee yaakaar naa tey ñaari 30 yi bu ngeen fi jaare ñaari yëpp leer na naa ñii ndax ñun lu ñuy lu ñuy jëf rek ak ñin àndal bëgguñu faral di ko wax ndax yàlla rek tax ñuy jëf kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi conseil départemental nag su ngeen ñu jàppalee ba nga xam gàññe nañu bu boobaa ëllëg dana taxit lu ngeen soxla it dana gën a jàpp ne ngir ñu gën koo ndax conseil départemental dafa bari lu mu man muy ci wàllu njàng mi wàllu jàppale jigéen ñi wàllu jàppale ci xale yi ba ñu am xëy waaye aussi tamit wàllu tey képp ko am jafe-jafe ci wàllu ndox ñu mën la jàppale ba zone boobu ñu man faa def ay adduction d'eau ba nga xamante ne du ñu amati ay jafe-jafe ci wàllu ndox wàllu éclairage comme ni ñu ko defee ndax lu mairie yi war a def rek bu ko deful su ngeen ñu woowee mën nañ leen cee jàppale ak comme léegi li ngeen wax léegi muy jàppale leen ci loo xamante ne ay bale la ba ngeen mën a bale seen koñ yi ba mën koo setal loolu moom incha allahu balaa élection yi danañ ci jël ay matuwaay xool nan la ñuy def ba régler loolu ci nu gën a gaawee. kon daal nun suñu bëgg-bëgg mooy jàppale jigéen ñi suñu bëgg-bëgg mooy jàppale ndaw ñi ak mag ñi incha allahu bu soobee yàlla daal na ngeen xam ne am ngeen fi baara am ngeen fi Modou Moussa na seen xel daal lu ngeen soxla su ngeen leen ko waxee. danañ ñëw ci conseil ba ñu réglé ko ci nu gën a gaawee nun nag suñu taxawaay lenn la mooy bëgg-bëggu Serigne Touba rek lu Serigne bëgg bëgg nañ ko lu Serigne Touba bañ bañ nañ lépp loo xamante ne xam nañu ne lii suñu ko defee bëgg-bëggu Serigne Touba la loola danañu ko def bu ngeen déggee coow li bari fan yii ci affaire borom ñaari tur yi la ko waral mooy dañu xam ne Serigne Touba ba mu taxawee ca bureau ba ca Ndar lenn rek a taxoon mooy dañu bëggoon a rey lislaam mu taxaw bañ ne lislaam moo fi taxaw tey ba ëllëg loola moo ko jàppale woon ak tubaab bi kon nun suñu nekkee ay nit yu suufe nekk taalibe Serigne Touba ñu ñuy tudd di tudd Serigne bi war nañu fu ñu taxawee ñu nar faa néewal doole diine ñu taxaw ne du am lii moo waral nun ñu ne nun day bi ñu taxawee nu ca bureau ba ca assemblée nationale ñu xalaat ku tedd ka la mu bañee woon ñu ne nun de ay taalibeem lañ dañ ko war a bañal loola moo waral ma taxaw ne bañ naa góor jigéen du ma sa am ci senegal ndax Sëriñ Tuubaa bëggu ko sëñ Muntaxa bëggu ko ca tey bureau bii tey maa fi teew di taalibeem dim sëtam danaa taxaw bañal ko ba ñëpp xam ne bañal naa loola moo taxaw ma taxaw ne bañ ne góor jigéen du fi am député yi Macky sàll yi ñoom ne góor jigéen yi nañ leen bàyyi ci seen liberté ma taxaw ne leen du fi amee jàpp naa ne waaye nag sant naa yàlla ndax ba ma xëyee suba Serigne Mountakha def na déclaration wane ne góor jigéen du fi am tey du fi am ëllëg loola nag ndamal Serigne Touba la kon loolu war naa tax yéen ñëpp ngeen jàppale ñu bu bi jàppale président Abdoulaye Wade mi nga xam ne taalibe Serigne Touba la Abdoulaye Wade Serigne Saliou waxoon na ko ne ko li ma lay yéene Serigne Touba rek laa koy diis kon yéen ñëpp war ngeen a góorgóorlu fexe ba Abdoulaye wàdd am ndam ci loola mooy delloo ko njukkal suñu seetaanee ba Macky sàll mi nga xam ne mooy dooleel borom ñaari tur yi am doole ci Touba ba gañe Touba bu boobaa loola gàcce lay doon ci nun ñëpp góorlu leen ba bi ngeen jël bulletin bu Abdoulaye Wade bii fexe ba mu fees dell ci urne yi bu kenn tàyyel képp koo xamante ne nii maanaam yeewu nga suba bala ngaa def dara na nga jël na nga jël bi na nga dem fa ñuy voté boo demee tànn bulletin bu son bi dugal ko ci biir urne ba votel Abdoulaye Wade delloo ko njukkal ngir jëmmi Serigne Touba ngir liggéeyal na Serigne Touba. góor gi dolli ñu Sénégal moo raw ci réew yi Afrique 2006 fi mu nu jëlee fi nu jëmee ko gën. góor gi dolli ñu fi nu jëlee fi nu jëmee ko gën. góor gi dolli ñu ci bu naree neex su baaxee dafay yàlla bu fa saay saay bi bon bi jaar ba xorom ñu ko yàqal ñu ko loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may góor gi dañu